Ah, yow mi dëkk Mauritanie di Nouadhibou ak fépp lu ko wër saa su ne yéen ngi ni seet di ñu seetaan ci chaîne YouTube Bio Rahma waa Mauritanie numéro bi nga xam ne mën ngeen ko jox jokkook ndaw ga ñu toogal foofee ca Mauritanie numéro baa ngi noonu yéen a ko doon laaj kon yow mi may suivre ci chaîne YouTube te bëgg diw bu baax saabu bu baax ak lépp loo xam ne lu baax la ci bio wooteel si numéro bii ngay déglu numéro bi ngay seetaan numéro bi nga xam ne saa su ne boo ca bàyyi rek te dëkk Mauritanie di nga am suñu produit kon waa Mauritanie bio a doon laaj rax maa ngi noonu.